al également ñu ngi xam ne ni euh, am na passe wala amoon na on sait pas passeport euh, bu réew France ak carte d'identité bu ñu ko délivré en 2005 ndax euh, déjà tey ban lecture ngay def ci loolu jërëjëf mm, Khady jàpp naa ni coow li bari na fi nga xam ne moo di Sénégal jëm surtout nag ci wàllu processus électoral bi depuis bu mu tàmbalee ba léegi la ci xew bari na lañ cay dégg itam bari lañ say dégg am na loo xam ne dëgg la ca waaye tamit am na lañ say dégg loo xam ne jàpp naa ni buñ ko vérifier bu baax euh, la fay la dëgg dina néew wala boog dëgg sax du fa am mm-hmm. du ma ne nag euh, candidat yu ñu retenir gannaaw Rose Wardini bi nga xam ni retiré na finalement sa candidature ba wax ni ay la yëwan dina am ay leeral yoo xam ne dina ko jukki ñu ngi koy xaar ba tey euh, du ma ne li des si candidat di fukk juróom-ñeent ñëpp ñoo ci nekk exclusivement de nationalité sénégalaise. Mhm. c'est le vrai que le conseil constitutionnel am na sañ-sañ jëm si li nga xam ni mooy def toutes les vérifications mais xadi colonel mhm. xam nga ñun suñu loi lam ñu wax dafa leer. kay def kay déposer dossier li nga xam ne lay déposer mooy déclaration sur l'honneur mhm. dañ la naan conseil constitutionnel war na mën a vérifier waaye tey conseil constitutionnel bu waree vérifier nationalité képp ku déposer defe naa ni dina bind bataaxal ministère des affaires étrangères wala ambassade accrédité de plus dans de cent quatre-vingt-dix pays à travers le monde pour vérifier parce que ay la yewoon ku xool ndey faatu xam ni am na double nationalité bu dul sénégalaise di ougandaise yoo xam ne dina ko si boole donc loolu pour nga vérifier ko dafay jafe incha allah dafay jafe pour nga vérifier yooyu yëpp dafay jafe mais li am ba am xam nga tey ni si on reste sur les principes journalistiques. Mhm. am na yenn kaay boo xam ne génne na ko wax ni am na nationalité amoon na ko lu wax ne amoon na passeport amoon na ko amoon na carte dante mu amoon na ko. Mhm. tu as vu que j'ai conjugué à l'imparfait. Mhm. lan moo waral si on reste sur les principes journalistiques encore une fois ba nga ko yëgee effectivement di nga def li nga xam ni mooy vérifier vérifier. loo nga xam ni lan mooy lan mooy dëgg-dëgg quintessence ak véracité information boobee mais li ma seetlu mooy interview loo xam ne def na ko pratiquement depuis pratiquement plusieurs années. Mhm. si loo xam ne leeral na ko que ni il était exclusivement de nationalité sénégalaise. ñaareelu mbir mi maa ngi suivraat cinq mhm. euh, parce que tamit vérification du doy bu mu defee interview ak tv cinq Monde. laaj nañ ko question boobu et question boobu euh, interview boobu mi ngi bëgg yàgg mm-hmm. wax na si que ni il était exclusivement de nationalité sénégalaise te autorité compétente yi ah mm-hmm. mën nañu def toutes les vérifications nécessaires et que moom il était en disposition de toutes les informations nécessaires pour pour mën a dëggal ni il était exclusivement de nationalité sénégalaise man damay jàpp ni bu dee da nga yàgg si nguur mm-hmm. ngay di suñu ne yàgg su nguur su mu ne homme d'état ce n'est pas comme ni ñu koy jàppee dans le sens où l'homme d'état par rapport à son comportement mais l'homme d'état bi nga xam ne yàgg na nekk si nguur yàgg na yor ay post de responsabilité doo bëgg jiite réew ba pare di salfaañe constitution te ëllëg bu dee yow lañu fal yow yaay ku nekk le gardien de la constitution mm-hmm. étant euh, faisant partie de cela qui peuvent demain être gardiens de la Constitution on ne saurait la Constitution te encore une fois man dama ko wax si moo fekkee ni def naa li nga xam ne moo ma war en ma qualité de journaliste mooy vérifier ji information bi mu waxuma nag la ma vérifier yaa ngi dégg mooy dëgg bi nga xam ne moo ndar képp lépp waaye daal li nga xam ne vérifié naa ko ba am si ba jamono ji ñu ma toog fii si émission bi di ko wax mooy que ni Khalifa Ababacar Sall il a renoncé depuis lors à sa nationalité française en, en quelle euh, jàppuma at bi en tout cas daal euh, c'est bien avant sax muy dugg ci candidature bi jëm ci 2019 am léegi nag c'est bien bien bien avant wala nangam nangam je sais plus mais daal li wóor ba lóor boo daal euh, li ma vérifier ci benn sax entretien bi nga xam ne def na ko en 2005 déjà 2005 ak la ca topp bi nga xam ni mi ngi jëm si li nga xam ne xëy na am na ambition bi au delà de 2014 au delà de 2016 je sais plus je sais pas mënuma wax année exactement bi mais li wóor ba wóor daal moom yëkk yëkkati na kàddu wax ko te interview boobu jiitu na processus bii ñu nekk interview boobu jiitu na li nga xam ne moo di dépôt dossier yi interview boobu jiitu na leneen ak mhm. nit ki nag gis nga nettali comme ni ko olof di waxee nettali si borom la lay dàqee. gémmiñu boppam. si waaw lamiñ si lamiñu boromam lay dàqee comme xalifa Sall nag moo wax ñu dégg ko. Mhm. ah Khalifa moo wax ñu dégg ko ñu def tam vérification yu leer léegi nag waxuma ni gis naa document boo xam ne da ko da ko authentifié mhm. mais daal si li nga xam ni remonté nañu information bi source ya laajte fii laajte fii laajte fii laajte fii yaa ngi dégg ba pare gëstu jiwaat ay baat yoo xam ne yëkkati na ko lu weesu processus bi mhm. si ay interview mu def si wax yi mu wax il reste exclusivement de nationalité sénégalaise et il est exclusivement de nationalité sénégalaise donc loolu jàpp naa nag profilam mhm. déjà lu ma koy wax profilam déjà moom profilam déjà ak li nga xam ne am na ko si yaakaar déjà ak fi mu jaar déjà ak lu mu jotoo occupé si post déjà mhm. ak li mu yàgg si langue politique bi déjà man damay jàpp ni il fait partie de ceux-là je ne dis pas que tout le monde est exclusivement de nationalité sénégalaise sur les 19 finalement retenus jusqu'au moment où nous parlons que ñoom ñëpp ils sont exclusivement de nationalité sénégalaise loolu je ne saurais l'affirmer mhm. mais tey si on prend cas par cas selon les révélations Ndeye Fatou journaliste la dina def recoupement man def naa recoupement recoupement yi ma def en qualité de journaliste ba tey ji di jonn Khalifa Sall renoncé woon na à sa candidature maintenant reste à savoir ndax xam. à sa nationalité waaw acté nañ ko wala acté na ko. mais pour être comme on dit il faut toujours relativiser. Mhm. en parlant euh, comme comme comme nous sommes tous des journalistes doo wax loo xam ne da nga naan. Euh, fu ñu koy waxatee <laughs> dëgg la boo xam ne moo jeex mais daal pour revenir encore sur le propos Khalifa Sall est exclusivement de nationalité sénégalaise si l'on se réfère au recoupement fait en notre qualité de journaliste par rapport à des sorties qu'il a eu bien avant même la démarrage du processus électoral bi nga xam ne fa la ñu toll tey ji nii. Mm. Euh, si weeru février bi nii. Euh, Ndeye Fatou tey ngir éviter cas Rose Wardini encore ndax conseil constitutionnel ñu vérifier euh, une bonne fois pour toutes ñëpp ndax nationalité exclusivement sénégalaise dañu am comme ni ko Abdoulaye waxee xëy na xalifa renoncé na mais on ne sait pas ndax acté nañu ko comme ce fut pour. Euh, Karim Wade excusez-moi. dafa impératif parce que euh, ngir mën a dakkal polémique. parce que mhm. y' a polémique ci double nationalité. dëkk de boo yaa dégg sax parti euh, PDS ak ñi mu ànd ci fond ñu ne du sax double nationalité mais am na sax triple nationalité ci